sëriñ Cheikh Thioro Mbacke sëriñ Cheikh Coro Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1867 ci dëkk bi waajuróom nekkoon nag di poroxaan ci dëkk boobu nag di poroxaan nag la feeñe jamono di doomu soxna Coro Diop ak maam Mor Anta Sali Mbacke moom Serigne Cheikh Coro am na nag ñu mu bokkal soxna Coro Diop ak maam Mor Anta Sali Mbacke ñu mën cee ràññee nag rakkam ja Serigne Balla Coro Mbacke ibnu maam Mor Anta Sali Mbacke ibnu soxna Coro Diop soxna Xadi Mbacke bintu maam Mor Anta Sali Mbacke bintu soxna Coro Diop soxna Kumba Tayba Mbacke bintu soxna Mor Anta Sali Mbàkke ak moom sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ibnu soxna Coro Jóob ibnu maam Mor Anta Sali Mbàkke ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñeent waaye am na ñeneen nag ñoom bokkal waajur wu jigéen nag te bokk ñu nag waajur wu góor te waajuroom wii nag di soxna Coro Jóob laataa muy ñëw nag ci maam Mor Anta Sali Mbàkke ci ku ñuy wax nag mbul Yaasin Joor Siga Faal nag ci la demoon ba tax na nag moom mbul cëy Yaasin Joor si Faal mi nag am nañ ak ya mbulte yaasin joor siga fal serigne lat sen fal imnu soxna coro te ya sëriñ mbulte yaasin joor fal te ya yaasin fal imnu soxna serigne jóob te ya mbulte yaasin joor siga fal ñett tim nak la bokal wajur wu jigen nak te ñu nak wajur wu góor ngir xamale le nak njabot gi nak mu bokal wajur wu jigen te ñu nak wajur wu góor nak ñoom ñoy ñan soxna debba fal domam nak moy ibrahima faal debbo lat sen fal domam nak moy serigne modou fal serigne modou fal mi ci na serigne touba cheikhul khadim nak moko kon Serigne Mbacke Bousso Serigne Mbacke Bousso itam nag seexaloon na ko mu toogaloon ko itam nekk dëkk bi nag di kuur ci suuf si nag di Kajoor mooy waajuru nag Serigne Moulay Fall kuur ci Yaasin Fall moo nekkoon itam nag ci dëkk bi nag di Bambey bi mu fi bàyyi ko itam nag yàggul moom soxna Coro Jóob mii nag ngir xamale leen nag moom nag moom mooy kan doomu buur bii nag la di Tase Jóob Tase Jóob nag doomu Yadde Jóob la Yadde Jóob nii nag moo meññ itam nag Lat Joor waajuru soxna Coro Jóob di Tase Jóob moog Lat Joor ay doomi bàyyi lañ ndax Tase ak Lat Joor nag ñoo bopp nag Yadde Jóob léopold Lat Joor itam nag moo juróon soxna Coro Jóob mii ginnaaw bu mu jógee nag mbul ci Yaasin Joor si ko faal mii nag Maam Anta Sali Mbàkke nag ngir mu bi mu ñëwee nag ci Maam Mor Anta la fa amoon itam nag njaboot ji nag ñu leen tuddal Maam Mor Anta Sali Mbàkke itam nag mi meññ Sëriñ Cheikh Coro Mbàkke doomu Maam Balla Aysa Mbàkke la Maam Balla Aysa Mbàkke itam nag doomu Maam Maara Mbàkke la Maam Mor Anta Sali Mbàkke mi meññ nag Sëriñ ñi mu bokkal nag soxna Coro Jóob ak Maam Anta Sali Mbàkke nag ñoom ñooy ñaan sëriñ Balla Coro Mbàkke ci mag ñi toppoon sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim la Seexul Xadiim itam nag moo ko defal léppam moo ko yabaloon itam nag mu dem Mbar Mbàkke moo ko nag chef de village yu Njaaréem Seexul Xadiim nag doon na ko xamal ne mboolem lu Maam Mor Anta Sali Mbàkke meññ maag yow rek ñoo fi bàyyi koo Njaaréem nag ñibbi Tuubaa doomu da ji nag di soxna Xadi Mbàkke moom soxna Coro Jóob ak Maam Mor Anta Sali Mbàkke sëriñ Mbàkke Buso nag lañ ko jébbaloon bi matee dem kër mook sëriñ Mbàkke Buso itam Mamanké ràññee ya nak serigne modou Bousso mu nekkon taw serigne bakke Bousso serigne moulay Bousso serigne Asan busu soxna frati busu soxna rokhayatu Bousso doomu ndayam ji nag di soxna Kumba ba mbacke bi mu maté dem keur moulay Nasir Aydara nak lañ ko joxoon mok Chérif moulay Nasir Aydara itim nak am nañ ak njaboto ñu man cee ràññee soxna Seynabu Aydara soxna Aminta Aydara soxna Seynabu Aydara mi nak lañ jébbaloon serigne bara mu am ci serigne Abdul Karim mbacke ak nak ay rakam baneen doom bi nak di soxna Aminta Aydara lañ jébbaloon sëriñ Moodu Cheikh Mbacke moom sëriñ Cheikh Thioro Mbacke ak moom nag sëriñ Cheikh Thioro Mbacke mii nag ñu fas yéenee waxtaane tey jii bi mu matee dal alxuraanul karim waajuróom Mamor Anta Sali Mbacke itam nag moo ko jàngal alxuraanul karim xam-xam itam nag waajuróom itam Mamor Anta Sali Mbacke itam nag moo ko ko jàngal ginnaaw bi nag sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag moo eggale am njàngam moo tax nag soo delloo nag ci mbindum sëriñ Mouhamadou Diop Dagana ci téeréem bi nag di Irwaa'u Nabi ma ngi cey na ñaari doomi Mamor Anta Sali Mbacke yi muy sëriñ Afiya Mbacke ak sëriñ Cheikh Thioro Mbacke seen waajuroo nag maam Mor Anta Sali Mbacke moo leen jàngal nag Mawahibul Quddus ginnaaw nag bu waajuram làqoo nag maam Mor Anta Sali Mbacke mu wéy nag topp nag ci ginnaaw magam nag sëriñ Touba Cheikhul Khadim wéyalitim nag am njàngam ba nekkoon na ku géejoo géejoo géeju nag ci wàllum nguur gi si newoon di ko la ñaani defoon nañ koy itam nag ab xaadi ci dëkk bii nag di Louga ci Louga boobu nag la wéy nekk ba ni sëriñ Touba Cheikhul ci géej gi bi Serigne Touba Cheikhoul Khadim jógee ci géej gi itim ba ñëwoon nag ci dëkk boobu nag di Louga laataa muy dem nag sànnoosi ñetti fan yooyu nag Cheikhoul Khadim nag am Louga kër Serigne Cheikh Thioro Mbacke nag la nekkoon moo tax itam nag soo delloo sax ci mbindum Serigne Moussa Ka mi ngi wax ne Serigne Cheikh Thioro Mbacke nag moo dalaloon magam Cheikhoul Khadim nag ci Louga ginnaaw nag bu fa Cheikhoul Khadim nag bàyyi ko dem bëri jàmm siisee jàmm sànnoosi nag woore fa nag weeru koor gi ginnaaw dem gànnaar bi Cheikhoul Khadim nag di fay tam nag mi ngi wii tam nag nekk Louga nekk fay tam nag ab xaadi Louga boobu nag la wii nekk ba ci atum 1909 Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag doog koo jox mu dem nag ci dëkk bii nag di Ndar Géej laataa muy dem Ndar Géej sax ci dëkk boobu nag di lo bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nekkee nag ki réew mi nag di gànnaar te njaboot gi nag bëggoon Seexul Xadiim nag dellusiwaat ci nag ci réew mi relation am nag biñ don dox nag ci diggante nag tubaab bi ngir itam nag loolu ñu bëgg nag a nag ba tubaab kan moo mën a garanti nag mbir mi ndax nag ma mën a nag ci réew mi sëriñ Cheikh Thioro nag moo nekkoon nag ci diggante bi ngir firndeel ne nag bi sëriñ Touba Cheikhul Khadim nekkee nag ci réew moomu nag di gànnaar ba njaboot gi bëgg nag mu dir si waat nag ci réew mii nag di Sénégal ci lettre garantie nag biñ bindoon jagleel ko nag gouverneur général ngir mu mën a bàyyi waat sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag mu dir si réew mi sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag mii rakkam moo garanti woon nag mbir mi moo tax nag soo delloo nag ci lettre biñ bindoon ngir adressé ko na gouverneur général nag bu Mauritanie lettre bi nag ñu ngi ko bind ci bu ñuy wax ma ci bisu juróom benn fan ci weeru mars atum moom mi bind lettre bi di ki ñuy wax nag Severio moom mi jiite nag commandant de cercle nag bu Trésor mi nga xamal nag gouverneur nag général nag bu Mauritanie na ko nag lettre ma a delluwaat mi nga xam ne ñun ñoo ko téye nag ci

minata ngir mata nakrin tuba ko jadi mesti rumah mana Actuellement, le 6 août 1907, le commandant du cercle du Trarza à Monsieur le commissaire du gouvernement général en Mauritanie. J'ai l'honneur de vous rendre compte que le cher Ahmadou Bamba, en résidence obligatoire actuellement, demande l'autorisation de rentrer au Sénégal. La conduite de ce marabout influent ne donne lieu à aucune observation de nature à faire ajourner ce projet. Au cas où Monsieur le gouverneur du Sénégal croirait devoir prendre cette mesure de clémence en faveur d'Ahmadou Bamba, la famille de ce dernier, représenté par Cheikh à supérieur de l'Ouba, offrirait à l'autorité toutes les garanties qui lui seraient demandées. signé Théverrier archive du Sénégal dossier Bamba mars 1907 dossier numéro 2 loolu mooy garantie lettre nag bi defoon ngir Serigne Touba Cheikhoul Khadim nag mën a jógee gànnaar dellusiwaat nag ci réew mi loolu itam nag bokk na itam nag ci sababu li nag Cheikhoul Khadim ñu yóbbu ko nag ci dëkk bi nag di cëyeen boobu itam nag Serigne Cheikh Thioro nag mi ngi Louga mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Louga ba ci atum 1909 ci 1909 nag la ko Cheikhoul Khadim nag woolu cëyeen bi mu ñëwee nag la Louga dem nag nag di ndar géej loolu moo waral nag sëriñ Cheikh Thioro Mbacke jóge nag Louga loo ngir dem nag ndar géej ci ndigal loo xam ne ni nag magam sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag moo ko ko joxoon bi mu demee ndar géej nag fekki woon na fa nag ay magi sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag yu fa nekkoon ñu mënoon caa ràññee nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina Cheikh Samba Diarra Mbaye ak ñeneen ak ñeneen bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di ndar géej Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina moo ko mayoon nag kër mu nekk fa wala moo ko joxoon nag addiya kër mu nekk fa kër ga nag mi ngi woon nag ci quartier bii nag tubaab bi sumoo ne ci riz bi ñu tuddee nag Madior Cissé waaye kër googu nag dafa mujj gént ginnaaw nag bu fi sëriñ Cheikh Thioro nag bàyyi ko amaatoon na gëneen kër nag ndar moo nekk ci nag ci riz bi ñu tuddee nag maître Babacar Seye ci kër gi sax nag la génnee àdduna doomam ji mu tudde woon soxna Indu Mbàkke moo fa féete woon mu wéy nag nekk nag ndar nekkiti nag ku jaxasoo Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ndax Cheikh Ibrahima Fall nag tudde woon na ko doom Cheikh Ibrahima Fall itam nag joxaatoon bi fi ñu tudde nag la mitance ci wetu nag palais de la république bi waaye suuf soo xeecam nag mujj na ko ñàkk mu wéy nag des ndar nag ba ni mu génnee àdduna ci atum 1924 laataa muy génn àdduna nag ci dëkk boobu nag di ndar taxawaloon na fa na daaree alxuraanul karim di jàng nag ak di jàngale mu nekkoon itam nag ku am xam-xam ku waa ndar itam nag nawoon ku boroom xam-xam yu baree baree bari nag nawoon dëkk boobu nag di ndar daaree alxuraan jam fa taxawaloon itam ci ñam fa jàngal woon cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Diop Gora sëriñ Masamba Jéeri Jeng sëriñ Buya Miqdaat Sekk ak ñeneen ak ñeneen ak njabootu boppam tim nag moo leen jàngal ci daara jooju mu yoroon nag ndar mu wéy tim nag des ndar ci ndigal loo xam ne nii nag magam sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag moo ko ko joxoon wéy tim di jàng ka jàngale waaye wéy tim nag di def nag lépp loo xam ne nii am na ko mu yit ko nag magam nag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci njaareem lépp loo xam ne nii tim nag day sagal yoonu murit itam nag ma nga ca ànd ak magi murit yi nga xam ne ni nag ñoom ñoo nekk tim nag ci boobu nag di ndar mu nekk nag ku bëgg magam sëriñ Touba Cheikhul Khadim soo delloo nag ci xasida gi sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag way magam sëriñ Touba Cheikhul Khadim ci tagg nag yim koy tagg mi ngi wax na nag soo bëggee xam nag ki may waxal mu ne texe nag ñeel na nag képp koo xam ne ni nag dangaa soo jógee ci moom nag suñ boroom nag far sa mbooleem ay bàkkaar moom mi may wax nag mooy sangub sëriñ si képp koo xam ne nii nag yaakaar nga ko nag suñ boroom nag far nag say bàkkaar ki muy waxal nag ba tey nag mooy ki nga xam ne nag soo ñëwee ci moom loo taq-taq nag dana la foot nag banga nga set wicc dana la defar itam nag ba nga kawe mu jox la nag ay maqaama nag ba nga sell kooku nag mooy ki nga xam nii nag bari waa na koo xam nii nag daa waroon a alku mu mujj ko nag xettali ki muy junj nag mooy sëriñu sëriñ si képp ku daw làqu ci moom nag ma xam ne nag mucc nga ki may wax nag bi muy ñëw jamono dafa fekkoon nag jamono nag lëndëm crise nag mu feeñ jamono nag ci lëndëmaayu jamono jooju jamono ji nag mujj leer nag ba mel nag weeru badar weeru badar nag moo dëppoog nag guddi fukki fan ak juróom ki may wax nag saa boo ñëwee ci moom ak jamono joo man di ñëw ci moom nag soo indee njàqare sa njàqare soos nag dana faju ki may wax nag ba tey nag saa boo riiree nag ba ñëw ci moom dana la defal nag ay ngëneel nag ak xéewal ba boo delloo nag xam ne nag ki la gindi mat na gindi kooku itam nag ku ragal yàlla la koo xam ne nii itam nag musta def nag benn bàkkaar la ki may wax nag mooy ku ka ki nga xam ne nii nag atabam itam nag dañ ko doon méngale mooy xiin woo xam ne nii nag day taw Coro Mbàkke way sëriñ Tuuba Cheikhul Xadim ci xasida nag gum ko jagleel ngir du duñu wax nag melokaanu magam nag ak jikkoy nag magam ñu teewlu nag li ci sëriñ Cheikh Coro Mbàkke way jagleel ko nag Cheikhul طوبى فطوبى لإنسان لها خرجا محو الذنوب لمن ساد الشيوخ رجا وذاك مثل الذي أسود من دنس لطول عهد بماء للبضيع وجا ورب شأن من التهلاك أنقذه شيخ المشايق فيه بعدما ولجا والدهر كان ظلاما قبله وأتى بدرا سرى بعدما ليل الظلام سجا والناس جاءوا ومن أنواره اقتبسوا من كل ما بلد حتى غدوا سرجا ذاك الذي من أتاه الدهر ذا كرب أو ذا مفاقر نال الوفر والفرجا ذاك الذي من أتى للجهل مغترفا أنجاه وهو تقي ما جنى حرجا ذاك الجواد الذي يحكي نوائله يوم العطاء غماما يخذف اللججا ذاك المربي الذي من كان يخدمه لوجه خالقه يوم القيامة نجا ذاك الذي من أتى يوما بمسكنه خير المساكن طوبى من دد خرج ذاك الذي في جميع الناس سوده ربي وزان به الأيام والحجج ذاك اختفى المقتفى حتى كأنهما لولا النبوت ذا ثوبان قد نسجا والله لولاه مات الناس كلهم على طريقة إبليس الذي سمج وهو الذي كل وقت في عبادة من حباه جهرا بفتح كل مرة تتجع وهو الذي الدين للمعبود أخلصه فسؤددا في جميع الجيل قد فلجع وهو السليم من الآفات جملتها وما نفاقا بما إيمانه مزجا وهو الذي دأبه إكرام من نزلوا ولا يواجه إلا وهو قد بهجا فالله كرمه فينا وقدمه ودام بدرا منيرا نوره بلجا بجاه سيدنا وآله الكرما مردي aduwihim law ma ataa wa faja alayhim summa alayhim ma sara xamarun azka salaamin ila arwaxihim xalaja mu nekkoon itam nag bind ba tax nag bi magam nag maam Moor Jaara nag génnee àdduna ci atum 1921 rakkam nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke defal na ko nag am marsiya soo delloo nag ci marsiya bi sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag defal magam nag maam Moor Jaara mi ñuy xamal nag ci biir way yi di ñu wax ne nag ñàkk nañ nag géej goo xam moom la ñuy wooye nag maam Jaara géej la goo xam ne nii nag géej la nag gu yaatu géej la goo xam ne nii tam nag géej la nag gu kawe gu kawe nag mboolem nag géej yi mu jàppe ko nag géeju xam-xam mi ngi wax ne nag laataa ñuy ñàkk nag Maam Moor Jaara ñàkkoon nañ nag ki leen taxoon a nekk nag di Maam Moor Anta Sali waaye nekkin nag fi Maam Moor Jaara nag nekkoon tax na nag seen waajuroo nag musuñu koo xalaat ndax Maam Moor Jaara mu ne ñàkk gi ñàkk Maam Moor Jaara nag liñ koy dalalee daal am xel mooy ki ñuy wax nag Ahmed mi fi nekk Ahmed nag du kenn nag ku dul Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bu dul woon ak jant boobu duñ mas a fàtte nag maam moor jaara seeni xol itam nag du mas a miis nag maam moor jaara nee nag ginnaaw seexul xadim nag mooy jant bi nag bi nag mooy leeral xanaa nag ñu miisee ko nag maam moor jaara nag mi ñu ñàkk mu ne ba tey nag maam moor jaara nag ngir ñoom ñu mën koo fàtte weeru badar nag la ko jàppe woon muy guddik fukki fan ak juróom waaye nag nee na itam nag jant bi fenk waaye jant bi fi nekk nag moo nëpp nag leeraayu weer wi ba tax na nag ñu mën a fàtte nag seen mag jooju nag nekkoon seen waajur di maam moor jaara lu yaatoo yaatoo yaatu dal serigne Cheikh Thioro mbake wax nak ci magam mam Mor jaar nak ba fi bayiko diko joy nak joy nag jooyu xool boole koog nag xalaat nak sa suné ñu téwlu nak li serigne Cheikh Thioro mbake nak bindoon ci ginnaw nak bu magam nak mam Mor jaar nak laqo mu jaglel ko nak am marché jaar bahran mumiddan bil جار kull al بالعلا كل البحور فقدنا قبل والدنا ولكن نسيناه به كسر الخيور ولولا الشمس أحمد ما نسينا أفول لشيقي بدرا للبدور ولشيخين آل هم نجوم سريا منهم أبر البرور فرضوان على الأحياء منهم وموتاهم من الرب الغفور ولا زال السماء سماء للبرايا وغيرهم الأرادي للمصير منك نك جاسون مام شيخ إلهي مالك سي نخام خام بيم أمون نك أك بوك نك غن بوك باتاخ نانتيم نك مام شيخ إلهي مالك سي موك سيرين شيخ تشوراي تيم نك دانن دونلنتي ديغنتي اب سانغ نك اكوب جامام سيرين عبد العزيز si Sida Ba wax na ne nag Serigne Cheikh Thioro Mbacke joxoon na nag am manto maam Cheikh El Hadji Malick Sy manto boobu itam nag bi fi maam El Hadji Malick Sy bàyyi ko Serigne Babacar Sy nag mi ko njëkk a wuutu nag moo ko doon noonu loolu itam nag tax na bi Cheikh El Hadji Malick nag génnee àdduna nag ci atum 1921 Serigne Cheikh Thioro defal na ko am marsiya dañu wax nag nitu yàlla kooku nag moom mooy kan soo delloo nag ca waya ma ngay wax ne nag ci wàllu diine na ci at mii nag ñu nekk diine itam nag bu ca mbaar ma nag jën ya ko taaw wenn jën wa nag fàqee na ca mu ne alaaji maalik nag mujj na dem àjjana fekki nag boroomam mu ne bis bii nga xam ne nag ci maam alaaji maalik nag génn àdduna jantum ngëneel nag muuru na tey jii mu ne nag bu fekkoon na itam nag guddi la ñu ne weeru ngëneel itam nag muuru na mu ne nag jamono nag dafa mujj nag lëndëm kiriisa ndax jóge nag gu fi alaaji maalik nag jóge mu ne nag faatug maam alaaji maalik dafa mel na daal suñ boroom nag dafee yëkkatee nag xam-xam mu ne géejug tabe itam na mu ne nag bërëb yi ñuy moo suñ boroom ak nag nu bërëb yi nag man di toll ñi ngi metti lu nag génnuk adduna nag maam alaaji Malick Sy ku daa jàngale nag ay fànni xam-xam nag yu baree baree bari nag te wuutee tey jii nag ginnaaw nag buñ ko ñàkkee ñëpp nag nag yëg nañ ko lu yaatoo yaatoo yaatu daal la sëriñ Cheikh Thioro defaloon nag ay way ginnaaw nag bu fi maam alaaji Malick nag bàyyi ko ci ab marché nag ñu teewlu ko tahaddama ruknu diini fii masasin huna wa saara ila jannati rabbi وزنه كما خسف الأقمار والدهر هالك لقد رفع الله العلوم بموته وغار بهار الجود أن المناسك وأس زمانا مستقيما مدرسا أفادين علم الله والكل حالك أبو بكر مرجا ثباته على منهجيه في الأصل إذ هو ماسك وأحمد المنصور يتلو كبيره وعبد العزيز الشبل من بعد سالك كذاك حبيب الله در جماله عليهم رضا الله له من يشارك عليهم من المولى هواطل رحمة وبارك في الليالي باق ومالك منك nekkit جخصو نك يونو مريد yoonu نك بوكم سرين بي tudde na sëriñ Touba Cheikhul Khadim doom tudde na maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doom tudde na rakkam sëriñ Balla Coro Mbàkke doom mu nekkoon nag ku jaxasoog sëriñ Mbàkke Buso bi mu génnee àdduna ci atum 1924 moo ko jullee faboon nañ rakkam itam nag jëm bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen jébbaloon ko nag sëriñ Mbàkke Buso nag ngir mu dëkkoo ko muy soxna Xadim Mbàkke ku jaxasoo nag Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muriidiina bi mu demee Ndar ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim mu dëkkee Cheikh Ibra Fall itam nag tudde woon na ko doom mu nekkin nag ku jaxasoog Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke nag muy doomam ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul faboon na doomam ju ñuy wax nag soxna Indu Mbàkke jébbaloon ko Cheikh Mamadou Lamine Baara tax na sax moom meññi Sëriñ Amar Fall Mbàkke nag bu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke itam nag tudde woon na ko doom ndax Sëriñ Cheikh Coro moom Sëriñ Baara nag mi ngi fi woon Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke itam nag woon na ko doom magam maam Cheikh Anta Mbàkke itam nag tudde woon na ko doom rakkam sëriñ cheikh Absa Mbacke muy doomu Mamor Anta Sali Mbacke itam nag tudde woon na ko doom soo delloo nag ci wayi sëriñ Moussa Ka ci way nag yëm doon way nag doomu baayu sëriñ bi te fa muy tudde nag sëriñ cheikh Coro Mbacke moo ko rakkam sëriñ Balla Coro Mbacke nag la boole di sàkku itam nag ci ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim ci darajey sëriñ Balla Coro ak sëriñ cheikh Coro dara ngay àdduna nag ak ju àllaaxira jurut dog nag ba mukk ñaari jëmm yooyu nag rakk jiñ doon nag ci Cheikhul barke ma ngi lay ñaan ci barke barkeb cheikh seex balla cioro coro nga judul dëkk aduna ak alakhir ndax ku bok ak yow jombu ci mom xutbu zaman sëñ musa Kay tim nak bindaat na ci sëriñ seex coro nag ak sëriñ balla cioro mi ngi waxe nak ñaar rek ci sëriñ touba cheikhul xadim yooyu muy sëriñ cheikh coro ak sëriñ balla cioro cheikh bamba nak moom moo tax nak duñ taw nak biro ba tey tim nak mi ngi wax ne sëriñ balla cioro nak mi ngi mbar mbacke nek fa sëriñ cheikh coro nak ma nga tudd mbar géej ñu tewlu nak bindum sëriñ musa Ka yaari rakki bàmba ya balla cioro cheikh cioro Cheikh Bamba tax daawuñu daw waxi biro Cheikh Balla Coro sancoon Mbàkke Mbarak jaaxal Cheikh Coro nga des ya daa di koy taaxal sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag bi matee jël soxna ñu boole ko soxna suñuy wax nag soxna Ngóone Faal moom meññ sax ab taawam nag bu ñuy wax nag sëriñ Moodu Cheikh Mbàkke waraatoon na itam nag baneen soxna muy ku ñuy wax nag soxna Kumba Faal di doomu nag yëlli njëbét Faal mook soxna Kumba Faal itam nag am nañ ak njabooto ñu mën cee nag soxna Bintu Mbàkke ak ku ñuy wax nag soxna Assu Mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag muy ku ñuy wax soxna ma jigéen mbeng mook soxna ma jigéen mbeng itam nag amoon nañ ak njaboot ñu mëneen ca ràññee nag Ahmadou Bamba Mbacke sëriñ Ibrahima Mbacke di kim faye maam Ceerno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru ak sëriñ Habibullahi Mbacke di kim faye sëriñ Balla Coro rakkam yoraatoon na baneen soxna nag bu nag soxna Faati Isa Jéey mook soxna Faati Isa Jéey itam nag amoon nañ ak njaboot ñu mënoon ca ràññee nag soxna Indu Mbacke sëriñ Omar Mbacke ak soxna Xadi Mbacke na baneen soxna nag muy ku ñuy wax nag soxna Faati Njaay Ali Jéey mook soxna Faati Njaay Ali Jéey amoon nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee soxna Sukayna Mbacke sëriñ Abdourahman Mbacke sëriñ Abdourahim Mbacke ak soxna Mariétu Mbacke sëriñ Abdourahman ak sëriñ Abdourahim mii nag ay seex lañ woon yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Ayda Si mook soxna Ayda Si tim nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Roxeetu Mbacke soxna Kumba Tayba Mbacke ñu gën koo xam nag soxna Aïcha yoraatoon na beneen soxna nag mu ku ñuy wax soxna Faati Njaay Neene mook soxna Faati Njaay Neene itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mënoon cee ràññee soxna Kumba Tayba ak soxna Maam Bintu Mbacke soxna yi Nak la dëppoo njaboot yi nag la ci am ngir xamale leen ak njabootu Serigne Cheikh Thioro Mbacke nag ñoom ñan doom di soxna Mbacke bi mu dem kër Serigne Ibrahima Fall Debbo nag lañ ko joxoon Serigne Ibrahima Fall Debbo mi doomu soxna Debbo Fall la soxna Debbo Fall doomu soxna Thioro Diop la moog soxna Soukeyna Mbacke nag am nañ nag am njabooto ñu mën cee ràññee nag maam Bunaama Fall Serigne Abibulahi Fall ak soxna Ndey Debbo Fall Serigne Ibrahima Fall lañ ko Serigne Lamine Ba Mbacke mook sëriñ Mouhamadou Lamine Bass na am nañ nag am njabootam ñu mën cee ràññee nag soxna Maymunatu Bass soxna Haysatu Bass sëriñ Abdoul Aziz Bass ak ku ñuy wax nag soxna Ummi Bass doom ji ñuy wax soxna Kumba Tayba Mbàkke bi ma matee dem kër ku ñuy wax nag sëriñ Fara Diouf nag lañ ko joxoon benn bant yi nag lañ am muy soxna Njaañu Diouf sëriñ Fara Diouf mi itam moo nekkoon nag waajuru Jack Diouf nag bi ñuy wax soxna Kumba bay ba Mbàkke nag mu ndaw bi mu dem kër sëriñ Moodu Lo nag lañ ko joxoon benn bant nag la am muy ku ñu wax nag sëriñ Bàcci Lo doom ji nag di soxna Bintu Mbàkke bi mu ma tee dem kër sëriñ Ahmadu Mbay nag lañ ko joxoon mook sëriñ Ahmadu Mbay itam nag benn bant rek lañ am muy ku ñuy wax nag sëriñ Omar Mbay ginnaaw foofu nag lañ ko joxaat ku ñuy wax sëriñ Abdoulahi Njaay ñu mën caa ràññe nag soxna Aminta Njaay soxna maam ñaaña Njaay soxna maam Ngóone Njaay soxna Njoora Njaay sëriñ Muhammadu Mustafa Njaay soxna Ndey Kumba Faal Yelli Njaay ginnaaw sëriñ Abdoulahi Abdoulaye Ndiaye moom soxna Bintu Mbacke sëriñ Moodu Xaabaan Mbacke moom Cheikh Mandoumbe Mbacke nag lañ ko jébbalaatoon waaye nag mook sëriñ Moodu Xaabaan Mbacke nag amuñu nag ak njabootu doom ji ñuy wax nag soxna Indu Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Sall nag lañ ko joxoon benn bant nag lañ am muy sëriñ Amsatu Sall ginnaaw sëriñ Moodu Sall nag lañ ko jébbal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Moksia Cheikh Mamadou Lamine Bara tim nak am nañ ak njaboto man ci cee na serigne Amar Fall Mbacke soxna Sukayna Mbacke bara ak serigne Sidi Mbacke bara bu Ndar geneen njabor gu jigen nak diñ tuddu ñen ñi nak biñ deme kër nak lañ genn aduna nak te bawuñu fi njabor ñen ñi nak ci seen fukki at ak ñaar japp fukki at ak ñett nak ci lañ genn aduna ñu ko melni soxna khadim Mbacke mam Binta Mbacke soxna mariatu Mbacke soxna khadim Mbacke ak soxna aftu Mbacke doom ji ñuy wax serigne modou Cheikh Mbacke moy ko njëkk wuutu doom ji ñuy wax serigne Ahmadu bamba mbacké moo nekkoon ci ñaareelu xalifa dom ji ñuy wax serigne omar mbacké serigne omar mbacké mi sax moo njëkk nekk nag ab député ci ku sant mbacké doom ji nag ñuy wax nag abdourahman ak abdourahim ñoom ñaar nag ay seex lañ woon bis bi mu demee ba di leen jébbal serigne touba seexul xadim nag ci njaareem guddi gi ñu waree dem ya njaareem nag jóge ndar la abdourahman nag faatu mu jël abdourahim nag jébbal serigne touba seexul xadim serigne touba nag jëloon serigne abdourahim mi jébbal ko nag serigne mbacké bousso ci loxoy serigne Buso nag la génne àdduna mi ngi gédee itam nag ñu denc doom ji ñuy wax Ibrahima moom la tudde woon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doom ji ñuy wax nag Abibullahi Mbàkke moom la tudde woon rakkam Sëriñ Balla Coro Mbàkke lii nag mooy njabootu sëriñ bi mooy lenn kim nag ci sëti Sëriñ Seex Coro Mbàkke mu wii nag des ndar di jàng nag ak di jàngale ba nim génnee àdduna nag ci dëkk boobu nag di ndar géej ci atum mille neuf cent sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag nag ci feebar bu ko dëkk boobu nag di Ndar gi ci ndigal nag lu mu ko toogee woon nag jële ko nag ci magam di sëriñ Touba Cheikhul Khadim mi ngi génn àdduna nag ci weeru tamxarit ci atum gi weeru tamxarit ci atum 1343 nag ci gàddaay gi mu nekk nag ci weeru août ci atum 1924 ci mois de août ci atum 1924 ci dëkk boobu mu nekkoon nag di Ndar gi ci kër gi amoon Ndar nag ci avenue Maître Babacar Seye ci kër boobu nag la génnee aduna ñu yëgal ko nak magam serigne Touba Seexul Xadim booba itam nak magam serigne Touba cheikhul khadim mi ngi ci dëkk bi nak di njaareem serigne Touba cheikhul khadim tim nak mo yabal serigne mbacke busso ngir mu dem Ndar mu ando nak serigne ngam abdourahman Lo mam Cheikh Anta mbacke serigne Balla Coro mbacke serigne Balla busso serigne Ousmane busso ak Cheikh Massamba mbacke bi ñu eggee nag sëriñ Mbàkke Buso nag moo ñu denc ko nak ci armeeli ceem yi nekk tim nak ci dëkk bobu nak di Ndar ci wétu Cheikh Samba Jaara Mbay ay khalifa nak ni la tëddee liko dalé nak ci atum mille neuf cent vingt quatre ba ci atum mille neuf cent soixante seize sëriñ Modou Cheikh Mbacke nag mooy njëkk nekk nag ab xalifa ñaareelu xalifa sëriñ Cheikh Thioro Mbacke ci atum mille neuf cent soixante seize la ba ci atum mille neuf cent quatre vingt treize di sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ñu gën koo xam nag ci sëriñ Mbacke liñ tudde nag doomu sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suufoo sët yi nag tàmbalee wuutu nag seen maam ji sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëriñ Cheikh Rokhaya Mbacke ibnu sëriñ Modou Cheikh Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Thioro Mbacke moo fi toog nag ci atum 1993 ba ci atum 1996 ñaareelu sët nag bi wuutu maamam di ñeenteelu xalifa sëriñ cheikh coro mbàkke mooy sëriñ moodu moustapha mbàkke moom sëriñ moodu cheikh mbàkke moom sëriñ cheikh coro mbàkke moo fi toog nag ci atum 1996 ba ci atum 2006 ñetteelu sët nag bu wuutu maamam di juróomeelu xalifa nag sëriñ cheikh coro mbàkke mooy sëriñ cheikh coro mbàkke moom sëriñ cheikh ahmadou bamba mbàkke moom sëriñ cheikh coro mbàkke moo fi toog nag ci atum 2006 nag ba nëgëni ñi koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maamam boobu ak mboolem nag ñu mu séqal sëriñ Cheikh Thioro Mbacke moom sëriñ Cheikh Thioro Mbacke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tudde ak màggal njabootam gi nag jàpp na ñetti fan nag ci weeru septembre di dajee nag ci kër googu mu génnoon àdduna nekk tim ci avenue maître Babacar Seye di kër soxna Indou Mbacke fa la ñuy amale nag ab ziar jagleel ko nag sëriñ Cheikh Thioro Mbacke am na beneen bis nag bu ay sëtam nag di màggal nag ci Touba Guédé di ñetti fani bis bi magam sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ñëwoon Louga te amoon fa ñetti fan la daloon na këram ñaari bis yooyu nag la ak njabootam jàpp nag di ko ci ku ñuy ñaan ca rakku sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ba doomu Mamor Anta Sali Mbàkke ba ka Mamor Anta Sali Mbàkke tudde woon Cheikh Mouhamed Al Khalifa ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh soxna Coro Jóob nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñuy tim nag ci barkeem di jafe-jafe réew mi tim nag yàlla ko suñ borom saafara ci daraje yi Mbàkke ak mbusóobe amiin ak mbusóobe amiin Angbusobe, Amin, Angbusobe, Amin, Angbusobe, Amin, Angbusobe, Amin.